ginnaaw bi ñu sante yàlla nag julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur di leen gërëm yéen internet yi ñuy topp fii ci Leewtoo TV chaque jour ñu ngir ñu leen indal li gën a fës ci noonu nag aljuma ju sell ji nag comme ni ma koy defee chaque jour dama ci jiital borom kër gi rek di Pape Thialis Faye di ko nuyu di ko ñaanal jàmm ju bare bare bare di ñu ma toogal ñëw ak yéen ci li gën a fës si bopp xibaar yi mbay nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la gannaaw ba ñu amee mbégte ak contentement jaajëfal bu baax a suñu mbokk internet yépp yi ñuy topp ci Leewtoo TV bëggee leen bu baax a baax ñaanal leen ajjuma jàmm ak salaam di leen wax juma mubarak wante tamit di ndokkeel bu baax a baax suñu mbokku chrétien yépp tey ci vendredi saint bi di leen ñaanal bu baax a baax euh, feetu jàmm. Assane Waala nuyu naa la. ne Mbacke naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internet wu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen. ma ngi noonu nag revue bi Iwil Jador moo leen koy may chaque jour fii ci Leewtoo TV vendredi 2 avril 2021 journal suñu lam mu xëyee ci xëtam mu njëkk contre Lac de Guiers 2 ce 4 avril kii di Eumeu Sène un ex-roi des arènes en sursis Mbaye Babacar digganteem ak Lac de Guiers 2 mi nga xamante ne bi moo fi nekkoon roi des arènes mu mel nii Euh, am na lu bari lu koy xaar digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Lac 2 gannaaw ba mu jógee ca Modou jëlee ca defet mu mel ni boroom xam-xam bii nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu tàggat yaram ñu naan ko sàccoom bi Diop nekk fële ca Kaolack ndàngaan dafa ne Eumeu seen war naa moytu tegale ñaari défaite. dëgg la Mbaye Babacar euh, tey journal euh, suñu làmb xëy dugg ci grand combat bi war am le 4 avril bii di ñëw Gaston Mbengue tëgg ko. te mu war a dox ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène suñu lamb lu mu titré mooy contre Lac 2 ce 4 avril Eumeu Sène un roi en sursis nee na Eumeu Sène daal sursis la nekk ndax war na def tout ba éviter un second euh, revers d'affilée ndax le 28 juillet dix Modou Lo daf ko daane woon jël roi bi ci moom te amatul droit à l'erreur maintenant nag mot d'ordre Eumeu Sène mooy gagner gagner et gagner comme ni nga ko waxee saa Combi nga xam ne ni benn chroniqueur sportif la dëkk foofu ci Kaolack dikk na ci combat bi moom lu mu wax nee ne Eumeu Sène doit se réconcilier avec Stéphane ndax nee ne Eumeu Sène war a amatul droit am défaite ginnaaw defet bi mu jëlee woon ci Modou li li ko war daal moom mooy bu réconcilier wu ak fans club am yi. ndam rek moo ko war ngir mu mën a dalalaat xeli fans yi. voilà dafa jógee ci defet boo xam ne nii ni mu ci ni mu demee woon rafetul donc li ko war rek moom mooy amaat beneen pour bégal ñi nga xam ne nii ñoo ko sopp ma nga noonu nag démb lañ ko fi waxoon ah même si certains la woon Assane Waalo lañ la déclaré woon ne Pape Thialis Faye annule le combat qui devait opposer Boy Niang et Tapha Tine d'avril la woon Mbaye Babacar. waa mi ngi noonu mu mel ni euh, xabaar ba ba mu jibee ñu bëri naqarlu nañu ko ba pare mu bett leen nag wante di leen wax ne rek euh, loolu poisson d'avril la woon di leen wax ne euh, combat Tapha Tine ak Boy Niang tey la gën a am bu ci yàlla ànde dëgg la Mbaye Babacar comme premier avril la nekkoon démb comme ni ñu koy defee d'habitude poisson d'avril day am ci mois d'avril bi looloo taxoon ñu am inspiration boobu wax ne Pape Thialis Faye renonce au combat Tafatine Boy Niang 2 loolu poisson d'Afrique la rek la woon combat boobu mu ngi am ba léegi ñu ngi ko prévoir d'ailleurs le 25 euh, juillet bi di ñëw euh, promotion bi démarré na gis ngeen semaine bële passé tafaatin ak euh, Boy Niang 2 dajee Joal def fa benn face à bu neex a neex a neex donc poisson d'avril la woon combat bu mi ngi am ba léegi. Assane ñi ngi jéggalu bu baax a baax suñu mbokk yi nga xamante ne bii nag bi ñu ko waxee seen fit dem na ndax xam nga amateur yi dañoo bëgg làmb rawatina ñi nga xamante ne bii mooy côté ñaari mbër yi diggante Boy ñaar ak ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine bi ñu waxee xibaar bi man téléphone wooyo nañ ma fu nekk di ma laaj combat bi lan moo tax ñu fomm ko ñu ngi jéggalu bu baax di leen wax ne poisson d'avril la woon rek encore une fois ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax. coach Diabon expert en sport de combat lam ci xam ne mooy Lac de Guiers 2 est capable de battre n'importe quel lutteur Mbaye Babacar gannaaw ba ko ñëpp ràññee ci li nga xamante ne bii moom mooy sport de combat coach Diabon nga xam ne bu yëkkatee kàddoom rek ñëpp di ko bàyyi xel moom nee na Lac de Guiers capable na pour daan mbër bu nekk ci làmb ji ba pare teg ci ne Lac de mbër la ma nga xamante ne bii mbër mu naqaree manœuvrer la ndax dafa teey dafa dal dëgg la Mbaye Babacar coach su Jabon di benn expert en sport de combat souvent bu la bu grande affiche yi liggéey dañ ko jox kàddu mu def analyse bi te nag mu def benn analyse ci combat Lac de ak Eumeu Sène li wax nee ne Lac de Guiers est capable de battre n'importe quel lutteur nee ne lutteur bu nekk ci làmb bu nekk làmb ji rek Lac de mën na la daane ndax Lac de benn mbër la boo xam ne nii bu naqadee manoeuvre la benn mbër la boo également boo xam ne nii bu technique la waaye nee na nag euh, ce sera un combat euh, avec plein de calcul nee na combat bi ñu jëm entre Lac de Guiers ak Eumeu Sène combat boo xam ne nii bu bëri calcul lay doon waaye Eumeu seen li ko ci war moom mooy euh, li li Lac de war a moytu ci Eumeu Sène moom mooy cro crochet euh, large bu Eumeu Sène ndax nee na Eumeu Sène dafa am benn crochet large boo xam ne nii bu redoutable la donc loolu Lac de de war na ko moytu. crochet large moom la wax laaw. laaw ci wolof. waaw mooy laaw ko waa Touba Dakar <laughs> waaye moytul mu mooy de bu moyee musiba am de. <laughs> da ngay déséquilibré ca noonu nag kii di waa Géejawaay. lañ ca xam ne mooy waxuma la 100 pour cent de mais ils sont ils confiance à 200 pour cent ci ki nga xam te ne mooy le puncheur de Walo di la da guerre Mbaye Babacar ba léegi ci combat boobu la ñuy des fans nga xamante ne bii ak supporters yi Lac de Guiers ya nekk ci ca waaye ñoom li ñu xam ne mooy seen xel dal na bu baax a baax ci seen mbër mi nga xamante ne bii mooy Lac de ndax ni ñu ko gisee ak li mu leen woon seen xel dal na ci moom ñoom moom bu baax a baax. dëgg la Mbaye Babacar journal suñu làmb dafa def euh, dafa dem géejawaay jox leen euh, kàddu ñoo ñi nga xam ne ni ñoom ñoo dëkk ak Lac de ñoom nag lu ñu wax nee na ñoom il sont confiants à deux 200 pour cent noonu la ko journal suñu làmb titré euh, victoire contre Eumeu Sène géejawaay et confiant deux 200 pour cent pour la victoire de Lac jox na ci nag ay nit ay kàddu jox na ci El Hadji a Seck kii benn conseil la en marketing ki lu wax moom mooy euh, ce que l'on a vu nous rassure na ñoom liñ gis ci Lac de Guiers bi ni rassuré rassuré na leen trop ba yaakaar nañ ne le jour ji dinañ am victoire am na également Moussa Daaf Moussa Daaf benn commerçant la moom lu wax nee ne je suis confiant à 200 pour cent pour la victoire nee moom à 200 pour cent Euh, gëm na ne Lac de day daane Eumeu Sène am na également Abdoulaye Ba kii benn étudiant la lu mu wax moom nee ne Eumeu nanu baarara pa la route nee na Eumeu Sène mënu leen a baare donc euh, tey cette fois ci victoire rek la ñuy xaar ci Lac de Guiers am na également Pape Abdou Seck kii ñu koy woowee Dodo kii tamit beneen commerçant la ñoom ñu wax moo naan nee na on signera une belle revanche sur Eumeu Sène nee na revanche daal ñoom dinañ ko jëli si Eumeu Sène ndax Eumeu Sène dane daane woon te cette fois ci dinañ jëli seen revanche ki si mujj moom mooy Alpha Diallo ki moom benn éditeur la li wax nee ne Lac a gagné en maturité nee na Lac bi Eumeu Sène daane woon euh, bële du bii ndax Lac bi gagné na en maturité te victoire rek lay xaar ci moom Mbaye Babacar tey ci kon mën nañu wax ne Lac de Guiers dafa màggaat bu baax baax ci diggante waaw ñoom loolu lañ xalaat yaakaar na ne Lac de Guiers màgg na am na plus de confiance plus de maturité te combat bi waru ko lajj quoi. ma nga noonu nag supporters yee ko wax nee nañ bët du yenn waaye xam na lu bopp attan Tunisie tournoi de qualification au jour le du 2 au 4 avril Mbaye Babacar. loolu war a am fële ca Tunisie di ay di tournoi ba nga xamante ne bii tey la war a am ak Assane ak suba Assane bu ci yàlla àndee mu mel ni euh, suñu suñu équipe bi ña nga fa ngir participer ci. dëgg la Mbaye Babacar lii tournoi de qualification la aux Jeux aux Jeux olympiques moom nag Tunisie lay xewee Sénégal nag am fa ñetti représentant tournoi boobu nag tey lay commencé euh, jeex ci fan yii di ñëw. Euh, Adama euh, Anta Samb mi nga xam ne ni moom mooy représenté Sénégal suba lay lay commencé bëree moom ba foofu lay dugg euh, compétir après moom aadama Diatta ak Thiaka Faye min xam ci làmb simple bi ñoom dimanche la ñuy dugg ci cercle bi. lu ñu fàttali nag ne tournoi boobu am na 156 athlètes yu ciy participer ak 23 pays. Thiaka Faye moom mooy borom ñetti tur yi. yaa mooy dégg nga di ko wax. waaw Thiaka Faye ak li nga xamante ne bii mooy Biram Kunkung. ak biis bi. ñetti tur yooyu lañ koy woowee. très bien face to face avant-hier à Thiès kii Safi Faye Safi Dieng ak Ousmane Gandigal mettre le fa Mbaye Babacar. mu mel ni tàngal nañu Thiès kaay ba mu tàng jër loolu foofu la woon ca Thiès combat bi war a dox ci diggante saafi ak Ousmane Gandigal te te Sidi Diakhaté taxawal ko Assane mu mel ni face à face ba neexul na. dëgg la Mbaye Babacar face à face avant-hier à Thiès Safi Dieng et Gandigal. mettre la feu noonu la ko journal suñu làmb waxee ndax Safi Dieng lu mu fa wax nee ne Safi Dieng mi nga xam ne mi ngi boo nekk ci école de lutte euh, Omar euh, Diako moom li wax je euh, je n'irai j'irai le chercher la où tu moom loolu la wax adversaire am bi di Ousmane Gandigal nee na foo ko nekk ci encentre bi rek dinaa la fa fekk dóor la daane la Ousmane Gandigal lu mu ko tontu moom mooy tu n'as plus d'avenir dans l'arène nee na yow li ngay wax nii rek ay sóob la ndax amatoo avenir ci arène ci arène bi ñu fàttali ne Sidi Diakhaté moom moo tëgg combat boobu mi ngi am le 10 avril euh, ci terrain champ de course bu nekk ci Thiès Mbaye Babacar. Euh, Safi Dieng la mu wax euh, Ousmane gaal foo nekk ci biir géew bi rek ma fekk la fa timbax la. wallaahi. <laughs> Ousmane Gandigal ne ko yow amatoo avenir ci làmb ndax da ngaa màggat. jeex na mu mel ni kon guerre moo mots ba commencé na. tontu du forox. tontu du forox. kon l'espoir contre la jeunesse la. mu mm, ngi noonu. Modou Lo kit rock énergie. un gros poisson d'avril mu mel ni du ñun dong waa suñu làmb ussi def nañ ko gars yi démb Mbaye Babacar waaw comme ni ko comme ni ko Leewtoo point net defee démb ci diggante combat Tapha Tine ak Boy Niang suñu làmb tamit bi mu xëyee démb dafa bind ne Modou jóge na ci écurie boobu di écurie Rock Énergie wante tey dafa dellu siwaat nag di xamal mbokk yi ak ñi nga xamante ne bii ñooy amateur yi ne loolu euh, benn poisson d'avril bu nu waxoon la rek mais nekkul lu am. dëgg la Mbaye Babacar comme ni ko ñëpp constaté démb euh, journal suñu làmb xëy def benn titre ne Modou Lo quitte. Rock Énergie en conflit avec euh, Khadim Gadiaga euh, Modou Lo quitte Rock Énergie loolu lañ xëy di kaat nee na tey ay poisson d'avril la woon ñu fàttali leen démb dafa waxoon ne Modou dafa amoon problème ak gaja euh, ga Gadiaga gaja ga daf leen obligé woon ñuy entraîné noo ensemble mbër yëpp loolu la Modou Lo bañoon ba gaja Gadiaga envoyé ko benn amende bu 1 million Modou Lo gedd loolu ba quitté écrit bi loolu nag la journal suñu làmb ñëwaat tey ne loolu lépp ay poisson d'avril la woon ma nga drapeau boobu ñu duppee ki ministre Matar Ba ñu ngi xaar promoteur bi mu joxe date bi Mbaye Babacar. ñu ngay xaar promoteur ba mu létt ñaari mbër yi wala mu firi leen ndax boobu ba léegi ñi ngi toog ci li nga xamante ne bii moom mooy nan bu toogee ci nan du toj ndax xam nga mbër boo ko joxee avance mu yàgg ak moom avance ba day jeex te day sonn kon maam ak mbay Guy gi ñu ngi xaar Assane Ndiaye mu wutal leen date ngir ñu mën a jàkkaarloo jëflante. dëgg la mbay Babacar combat bi ba mu taxawee yàgg na Assane Ndiaye moo ko tëggoon maa ngi fàttali bi ni def signature foofu ci plateau lañ ko defoon ba ci benn hôtel wala benn restaurant. Mhm. kon yàgg na bon ko tëggee léegi nag maam mi ak Mbaye Guy gi nee nañ ñu ngi xaar Assane Ndiaye mu jox leen benn date ndax date yi commencé nañ ko jël depuis bërki dem ci CNG maintenant nag jot na Assane Ndiaye jël date fixé leen également benn date boo xam ne ñoom ñaar si la ñuy bëree ayca mu nga noonu nag Sibassor lañ jëm pro Sibassor production 500000 francs sa samedi mu mel ni lu simple la fay tëgg daal di fay teg mil fee ca gànj gànjaay mbay Babacar. téeméeri junne la fa teg Sibassor production di label ba nga xamante ne bii ci wàllu làmb lay yëngu Assane ñoom tamit dugal nañ seen loxo ci bëre simple. Mm-hmm. dëgg la Mbaye Babacar Sibassor production moom mooy musée 500000 samedi bii nii maanaam suba foofa si samedi 3 avril. foofu ci stade municipal de Gandiaye euh, gala boobu nag ki koy animé moom mooy Modou ngoom ak Ndeye faatu aadama Dialli comme ni nga ko waxee rek si Basor comme lamb yi euh, simple it instant yi moo tar ñoom it ñu ngi ñëw indi seen cinq mille teg ko foofu ci Gandiaye. ca noonu nag 11 avril bii di ñëw 2021 Adama Sané prépare son baptême de feu Mbaye Babacar. ma ngay waajal combat bu mag bu mu taxawal moom Adama Sané di promoteur incha allah mu jàpp Assane combat bi la 11 avril mu ngi ci préparation yi mu ngi ci wàccaay bu baax a baax. dëgg la Mbaye Babacar Adama Sané bi moom mooy patron Jam Tan production moom nag daaw la jëndoon euh, licence pour euh, tëgg premier combat am waaye pandémie bi ñëw fii mu toxal ko combat boobu nag waroon dox ci diggante Tigre Junior ak booy Diaw. moom nag la bëgg tëggaat lu fu mu ko jàpp jour bi mu ko jàpp mooy la 11 avril instant bi daal journal suñu laam nee na mi ngi préparé bu baax pour am baptême de feu boo xam ne nii moom moo war a dox ci diggante Tigre Junior ak Boy Diaw. ma nga noonu nag da jaajëfal bu baax asan waa loolu moo nekkoon li gën a fas ci bopp xibaar yi tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di jéggaluwaat bu baax a baax a baax nag ci suñu mbokk internet yi ndax démb commentaire bu nekk gis nañ ko cekk bi di jaajëfal bu baax a baax kebe mbaa kebe jaxara jëlal ak distance laa la koy jox moytul nag mu tegu ci taab bi waaw boo xam nga ma xam toi même tu sais ayca mi ngi noonu yàlla yàlla doole jàmm à demain incha allah. Assane Wala. mais Mbacké maa ngi lay remercier di remercier Mbaye Babacar remercier internetu Leewtoo TV waa Linguère. tout le monde Yacine Fall Fama Massour équipe bu Leewtoo yëpp di leen jox di daje suba ak jàmm incha allah. Ah, di nga comme république daa am ay code code ñuy joxe à distance <laughs> mu ngi noonu maa ngi lay bu baax ah, sama caméraman bi mañ pro sama lonko bi da jaajëfal bu baax kontaanee naa la Fama euh, ñi ma feggaloon Mbaye Babacar Assane Waalo kontaanee naa leen bu baax a baax. Kébé ah Bilal suñu gan bi maa ngi leen di nuyu Ousmane la xale bi Aïda Matu jaajëfe naa leen bu baax a baax leen jox dig daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah.